Oumy Samb egsi na Oumy maa ngi lay nuyu di la ziar. ma lay delloo ziar bu baax <laughs> soxna Naata wala SNM bonjour à la team et puis di nuyu mbokk yi bu baax nous souhaitons euh, mm. un très très très bon vendredi pour mm. commencer ñu dem si météo mm. xibaaru jaww ji du jour <laughs> météo du jour donc climat bi euh, comme euh, le début de la semaine changé wul ça a progressé ci centre bi par contre ñu ngi woon si diggante Kédougou Kolda Sédhiou Ziguinchor c'est-à-dire extrême zone sud réew mi euh, tey progressé na yegg si na ba Tambacounda Kaffrine Kaolack dem Fatick dem ba côté Diourbel excepté euh, Matam Louga Saint-Louis Thiès Dakar ci suba gi ñu ngi xaarandi ay taw sur euh, la quasi totalité on va dire du pays dënnu bi moom dinañ ko dégg ci Kolda ainsi que Sédhiou et puis Ziguinchor te côté température ñu ngi tàmbale 23 degrés du côté de Saint-Louis dinañ ko am également à Thiès pour Louga pour Dakar 26 degrés dinañ ko am ci Diourbel 25 pour Fatick 26 degrés du côté de Kaffrine 26 à Tambacounda également 29 degrés la maximale du côté de Matam 22 pour Kédougou 24 pour Kolda euh, 24 pour Sédhiou et puis 24 degrés également pour Ziguinchor euh, risque de pluie euh, ñi nga xamante ni dañuy du yenn du ñu yendu seen kër yi dañuy xëy dem ngeen tëj euh, fenêtre yi euh, moytu tamit parapluie bi ma leen di wax tous ces temps-ci c'est une information qui va être récurrente euh, fan yi parce que ñu ngi dugg nañ ci saison des pluies bi euh, on est mois de on est le 1er juillet pardon bu ñu xoolee ci date yi euh, on a deux saisons au Sénégal saison pluvieuse et saison sèche saison pluvieuse bi di commencer ci mois de juillet bi donc dugg nañ ci tey bu ñu xoolee au niveau des mois mais changement climatique bi tax na il a commencé à pleuvoir depuis quelque temps déjà c'était légèrement précoce mais instant bi dugg nañ nawet dëggantaan donc bàyyi leen xel ci information yi ma leen di jox nii nii c'est pour euh, votre sécu votre seen kaaraange plutôt et puis euh, les paysans toujours pareil ba buy taw nii risque de pluie bi bañ a taxaw ci digg champ bi bés bu commencé di taw rek euh, ngeen moytu lool di abrité wu ci ay abri yoo xam ne le toit est métallique ay zinc wala genre yu wala ci suufu garab gi rek bàyyi leen xel si loolu à éviter fortement fi mu toll nii ñu dem ci après midi bi donc le climat Euh, change légèrement ci sud bi taw bi day wàccaat euh, à l'extrême sud euh, on va dire du côté de Sédhiou Kolda Kédougou Ziguinchor Tambacounda nuage dense bi mu ngi foofu noonu mais bulletin bi ne prévoit pas encore de pluie et puis sur la moitié nord du pays foofu jant bi dina fa fenk avec quelques nuages yu tuuti quelques niir yoo xamante ni dañ fa des températures la minimale pour Dakar avec 29 degrés 31 dinañ ko am si Saint-Louis 34 pour Louga 33 degrés du côté de Thiès 38 pour Diourbel 36 à Fatick 36 pour Kaffrine 34 degrés du côté de Kaolack 35 à Sédhiou 34 pour Ziguinchor 36 degrés à Kolda 43 degrés ça sera la température euh, bi ngeen xamante ni moo gën a kawe euh, ci après-midi bi avec 43 euh, c'est quand même un petit peu fi mu ne nii par rapport ak yeneen gox yi 27 degrés du côté de Tambacounda et 34 du côté de Kédougou. Toujours s'hydrater, boire de l'eau euh, quand il fait très très chaud bañ a déshydrater euh, wu éviter le soleil au maximum ni ko mënee rek ñu bàyyi ci xel loolu tamit donc marée yi ñu xool leen euh, la prochaine pour 10h28 incha allah ainsi que 22h58 prochaine marée basse 16h48 incha allah après-midi euh, bu baax bi pour napp ji entre productivité des poissons dite euh, très très élevée euh, aujourd'hui donc ñu si yaakaar comme tous les jours di fagaroo de sauvetage bi le GPS et puis la petite ñu dem si wàllum jant bi le soleil 6h44 une minute de plus euh, par rapport ak démb et puis le coucher ne bou ne bouge pas donc ma dellu si si kanam si ñaareelu pàcc bi. Euh, pour la météo en express et puis ma bàyyi la ak Marcel. ba ci mm. kanam ma dem ndekki ci à tout à l'heure à tout à l'heure incha allah Oumy Samb merci beaucoup euh, léegi léegi dañuy dalal Marcel Farba Maroun euh, ci un jour un chiffre léegi léegi lay doon.